gati didam yamanguma korma masare mbamana jalaye ngor fo ngore korikorni jof jaraf ka jilas masislo gongoy taye yala waye gori ami korfatu lamin ngor maka sedete mbirnaye maɗum mbigan téléphone ha doba dambadiɗa bisida kalamine cey buma deggon séréer oho oh. le ak le 5 ñu nga jëm Diouroup ànd ak association Ndiom Ñal ñu woote lan ñu ni làmb ju rëy ju mag ju ngand ju pata ànd seen ñan ñu ni doomu njongoloor bi ak doomu Diouroup bi kookan la ñu ni Aliou fay ak Tamsir fay maire Diouroup oh oh mise un million cinq cent cinq cent million mooy poids léger ci samedi bi ñu ni poids lourd yi dimanche la dee ñu tegal mbëri un million inscription dix heures trois heures pile ma ni gars yi dañuy sëgg bëree dix-neuf heures dañuy tas làmb ji éhé eh, njom eh, ña lamb bëccëg ma ni ku bëgg a gis lii dama ni la huit heures na la fekk biir juróom nga daal di toog dela agn nan sa ataya nan sa zirik daal di dem tok djel place fas setan ciosan ak ada entre papa Ndiaye krak ak kan ñu day faatu Adama Jali Ngom kon gaay yi bis baangi non bu ko kenn tardé Aliou fay lañu andal ci si bis bi ak kan ñu ni Tamsir fay waye president bi kan la ñu ni association njom ñal ñu ni kan la père Madou Mbigaan borom jilaas kon gaay yi rang sa bi barang ñu jay jayi faña faña xiba fan ñu ni eh, eh jurub kon dama naan sadima coo e ngor ka ngan faak ba mu soxoy na fati muña xin saar ngor ke teba ndef ke mbog na laamine